fase eh. koo xamante ne indiwul xar ko rek. en tout cas amoon solo. livret de famille justement pour ñi ko xamul rek mi ngi nii Mouhamed Diop gis ngeen ko donc euh, nul n'en ignore il déploie tous les moyens pour justement vous faire comprendre l'importance de la loi et l'importance de votre sécurité justement gis ngeen lii ku ko am rek sa taarixu juddu ak sa taarixu mm. sëy sa diggante ki ngay sa aj ñaari aj de dencante yi mm. euh, dafay daal nekk ci tënk ci fii euh, kon Mouhamed Diop merci beaucoup yal na yàlla fayee la ko yiw ma ma ma ñaan la benn affaire euh, boo ma ko mayee <laughs> parce que dama ko bëgg boole ak rubrique actualité bu Pa Assane MD may ma vidéo bi quelques secondes la mm-hmm. comme ça après même bu ñu ci dul commenter sax Pa Assane dikkaat ci parce que c'est important su mm-hmm. fekkee voilà Pa Assane gis nga lii si au niveau du stade Léopold Sédar Senghor état nag moom li ko gars yi di tuumaal mooy euh, euh, départu gaynde la ñuy def arrivé muus ginnaaw ba ñu defee opération déguerpissement déguerpissement stade bi yëpp mm-hmm. mais problème bi mooy lii lii lii gis camion gravats yi c'est-à-dire def dara et que a koy wax la la nature a horreur mm-hmm. bien gis ngeen léegi camions yi ñooy ñëw décharger seen yi ay gravats sotti seen i mbalit dem seen yoon nii la stade bi mel léegi nag loolu nag c'est à vous de commenter xam nga nag boo boo boo ko waxoon ñu leen non loolu amul mais nag voilà preuve à l'appui gis ngeen gis ngeen foofu yëpp ay mbalit la gis ngeen oto oto yeeg yu mel noonu camion boobu daa sotti a daal di demaat yoonam voilà li mooy liggéey bi amul dootul amati njëriñ en fait. mais voilà est-ce que sant ñu ko ko. ah tamit ni ma gisee affaire yi ordonné noonu. Euh, sotti bi. ah sotti bi jub na de. <laughs> xoolal gis ngeen affaire yi. amuñu fu ñu sotti amuñu fu ñu sotti. non amuñu fu ñu sotti mais non cest dafa mel ni lu ñu organisé te. non non sotti bii. non non amuñu amuñu fu nu sotti fii la ñuy sotti. ba que ñu organisé ko wala ñu def lu leen neex. Hmm. gis fi ñu koy sotti nii. waaw j'habite juste en face. naturellement rek ils viennent sotti. waa léegi nag léegi nag c'est une très bonne question li nga posé. léegi ñoom ñooy. ñoom ñoo ñu justifier ba xam ndax ñoom ñoo leen sant lii. wala mm-hmm. wala wala ñii ñoo ñëw sotti nam leen neexee. parce que ah, si si c'est le contraire moom euh, voilà c'est catastrophique. mais mais am na bu gën a neex <laughs> am na bu gën a neex. dem ngeen Colobane. Colobane jël ngeen Colobane longe wàcc. fekk naa fa de. ah yéen kon gisu leen terre bi. man gis naa teer bi waaw gis nga teer bi. man dugg naa ci ba di dugg naa ci teer bi. gis nga ko. <laughs> Eh, dugg na ci biir waaw léegi dugg naa ci ba mu daw waaye ca ba mu indigéré <laughs> diggante démb barki démb ak yooyu gisaatoo. déedéet gëj naa fa nag teer bi bare la mu pënd. léegi sangu na. teer bi day teer rek. <laughs> mais loolu la mu pënd. mais loolu est-ce que doo am technique. la mu pënd dina laaj organiser de. c'est que ñun j'ai comme l'impression qu'on a un problème on se s'auto-stagne euh, tout seul et après on a envie de débloquer les choses alors que yeneen problème ñëwaat na tegu ci stagnement boobu je pense que il faudrait une meilleure organisation dénk leen réew mi jigéen mais ah mais c'est grave hein <laughs> mais Asma présente-toi nous soutenir là ah bon oui. bon si je me présente qui qui vient derrière moi qui me soutient ah, ah, bah, tout le monde ah, tout le monde tout le monde bien évidemment mais problème mu teer bi asma. tonton Maba nee na sama ginnaaw man sama tonton nga. sama problème bi asma soulevé woon nañ ko fi sax si rubrique. économique ba ko tuddee may may maa ñaan boobu may ma ko may ko. <laughs> ba nga ko tuddee fii. Hmm. Binta xëy rek ne ñu xet rek kal mi dem ci teer bi. fii <laughs> bi jóg. wax ci teer ñaari fan après. ñu raxasaat ne teer bi dana tàmbali fii ak fin euh. dama la koy junjal rek léegi tuddaat ko. <laughs> mais terre bi euh, paasan li liñ ci gis sax mooy euh, la euh, kii partie xawma visible de l'iceberg parce que ñi ciy souffrir ñoo ëpp foofu man mi nga xamante ne dama dëkk foo xamante ne terre bi dafa jaar man maa leen ko mën a wax yow naka nga mën a tegee ay raay ba pare tegoo pont boo xamante ne population bi fa la ñuy jaar buñ ko doon essayer dañuy tëj je te jure dañuy tëj benn laps de temps nañu 5 heures du matin wala lii du ngeen circuler ba ñu essayer ba pare ibbiwaat ñu ñu doog a dem am na énormément de problème ay mag yi nga xamante ne tey jii mënuñu ko jéggi énormément de soucis yoo xamante ne état bi war na ci nag wax. war mille milliards la de yàlla. koppar yu bari la. jàppale te milliards yi sax yow est-ce que c'est un chiffre euh, constant parce que ñu naan peut-être dañ ci waxoon sax xëy na xaalis bi ci dem ëpp na économistes yi ma bëggoon jël ñu wax ci chiffre dañ ne mënuñoo wax ci chiffre parce que. amuñu chiffre yu clair yoo xam ne mën nañ ko teg sur la ah, ah. table lépp lu ñu wax ci xaalis rek day fekk amaana xaalis bu ko ëpp dugg na ci te ba léegi gisuñu dara bu ñu def ay réalisation duñu war a def benn affaire bu palpable ak loo mhm. xamante ne dafa nekk ci contexte bi war a jëriñ askan inaugurer kenn mënul dugg kenn demul kenn dikkul donc ana ñi ñi yëg li Binta wax dañoo bëri te ñoom ñoo koy dund bés bu nekk kon nag baax na ñu bàyyi leen xel ndaxte voté bu jotee seen ay carte ñoom ngeen di soxla ngir falu kon nag képp ku yàlla dénk rek wala damay naan sax nattoo nga yor nguur rek na nga war a fexe ba gëstu askan wi bu ko defee nga mën a mucc ak am ànd ak woy bu rafet merci beaucoup Mohamed Diop. merci à vous Asma merci kontaan bu baax baax. Euh, retrouver le plateau suba teel. Oh, oui namoon nañ la. ce fut croustillant. <laughs> ce <laughs> alors donc damay nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo connecté sur la page Sen TV l'officiel euh, Facebook di partagé suba ba léegi euh, maa ngi leen di ziar bu baax a baax Baye Modou maa ngi lay nuyu Adja Ngone Niang euh, madame Diaw joyeux anniversaire à toi maa ngi lay nuyu bu baax a baax yàlla na gudd fan. amiin macha allah yàlla may la rek dund bu barkeel ak njaboot ju barkeel. Pape Salif Badji Badji yow itam ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di nuy ki nga xamante ni moom moo di Abi Samba Ndiaye El Hadj Malick <laughs> nee naa la Baye Mouhamed Diop maa ngi lay nuyu. mbaa partagé nga rek euh, partagé voilà justement Aramka yow itam maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Astou euh, Ba yow itam ñoo ngi lay nuyu di la ziar nee naa leen da leen gën a partagé fii mooy keppaaru xam-xam kepparu xam-xam bi soxal askan bi kon nag war nañ ko gën a mën a tasaaroo ci biir askan bi bu ko defee rek ñëpp mën cee jot suba teel seen yëfa kon ma di leen jaajëfal bu baax a baax ñu woyal rek dalal Pape Assane Seck si actualité Aïcha Papa San Seck yaa ngi ma doon réer de. non non dama doon réer non dafa am dafa am ku ne. lu tax jigéen yi nga xamante ni seen kilifa yi seen wayjur yi dañu nekk ay polygame am mm. ay ñetti ñeenti jabar. Mm. ñoom di bañ noo lank deene dund nu wujje parce que dañoo xam parce que justement dañoo dund li seen ndey doon dund kujjee gi ca nekk li ci métti yëpp dañoo xam de ay kujjee dafa métti de waaw eh, eh, yi ci yaroo ci ba toll ni nga war a toll war a war dem am borom kër nga ne doo <laughs> jëkkëru jàmbur daal jëkkëru jàmbur yow koo yëpp jëkkëru ah. jàmbur daal jëkkëru jàmbur la te dégg naa sax il faut que bu bés bu ciy ñëw Pape Assane parce que da nga ko laajte nee nañu jabar yi boo leen di takk da di takk par ñaar waxuñu nga takk benn takkat beneen takkat da nga koy nef nga takk par ñaar nga def ah. ni Max Dumbia xam nga ñu ne dañ koy nef ah, soo ma ko waxee di nga di nga d'accord waaw imaginel ma takk la comme nga doon sama soxna mm. ma toog vingt ans après takkaat beneen jabar fekk na yow yaay commencé jëm mag ma ma ñëw takkaat xale bu ndaw ah su boobaa du la neex. léegi nag bu ne nee dañ dañ koy neef dañ bu ñu la takkee nga toll ci sa ci sa ci sa digg ndaw dañu dañ la war a takkal ku toll ni yow ngeen mën a. Euh, voilà ku ci nekk nag mën a ku ne ku ci nekk yaa xam ni sa sa sa kii noo koy liyee ni ñu koy waxee. voilà nooy tojee sa bopp. professeur vous êtes polygame. <laughs> non professeur bàyyi li ngay def. professeur yow gis nga asma polygame dañ ko war a encourager parce que euh, rapport yi ñu génnee jigéen ñi dañoo bëri macha allah te il faut ñu sëy ñii buñ jëlee ku nekk ñeent sax du tax ñu jeex nañu laawante biir rek. yi li mu wax ni yow. yàlla am na ñu ah? mu. professeur loo wax ni. <laughs> monogame yàq nga sama journée bi yëpp. <laughs> il est monogame et il assume pleinement justement tout comme vous. polygame heureusement heureusement que Binta est là. heureusement quand même non Euh, avant xam nga mariage dafa nekkoon loo xam ne c'était autour de l'économie koom-koom voilà donc ja laajoon na ñu am deux femmes trois femmes parce que mm. c'est des main d'œuvre c'est de la main d'œuvre mais instant bi takk bi si xool la on on se marie parce qu'on aime mm. et c'est difficile d'aimer deux femmes justement, il est très difficile d'aimer deux femmes. Un cœur est pour une seule femme. On est dans l'actualité, on fait place à Papa <laughs> Salsec. On reviendra plus amplement sur la polygamie ou la monogamie. Inch'Allah, respect des mesures barrières. Le président Sall demande à ses ministres de l'Intérieur et des forces sur le terrain. Mesures barrières. Ah, Respectons. Papa Sall. Eh waay eh waay eh waay eh yàlla na yàlla def jàmm Sénégal. yal na yàlla def jàmm Sénégal yal na yàlla def jàmm Sénégal yal na yàlla def jàmm Sénégal. ewaay eh yal na yàlla seddal xol yi yal na yàlla féexal Sénégalais yi ak Sénégal ak fépp fu ñu nekk. dina dina dinaa def sax benn njaal. dafa am sunu ay bokk yu nekk fële ca Denver États-Unis juróomi Sénégal yi ñu wax ni dañoo ñàkk seen bakkan ci benn incendie une famille. oui waaw donc vraiment. Euh, mu mu mu jaxase sénégalais yi ne foofu. Mhm. daf leen a daf leen jaxase bu baax am na ci ñett ñoo xamante ni wax nañ ñu rëcc nañu. Mhm. sauf que ñett ñi dañu tëbee troisième étage donc gravement blessé c'est aux États-Unis aux wow. États-Unis une famille sénégalaise un désastre donc vraiment métti bu doy waar la lu diis la. di di ñaan euh, yàlla xaare leen ci aljana yi gën a kaw allahumma amin ya li nga wax ci <coughs> mu concerne mesures barrières yi président de la république def démb conseil des ministres waxtaan ak ministre de l'intérieur ak ministre euh, des forces armées moom daal dafa wax ne na gaañi taxaw ci terrain bi wàcc ci suuf organisé pour que ñu am suivi fort du respect des mesures barrières hmm. loolu def naa yàgg nañ ko wax fii maanaam mbir mi du question rek déconfiné. Hmm. depuis le depuis on le disait. Ah, du déconfiné déconfiné ak wàcc contraindre les gens à appliquer à respecter hmm. moo doon wax nañ fii ne ni ñu defoon ci couvre-feu bi ba nit ñi respecté mbedd mi du ñu fa taxaw guddi gi loolu lañu ñu war a def bu ñu nee déconfiner nañu armée beeg police bi wàcc ci mbedd mi di circuler ak nit ñi bëccëg bi. Mm-hmm. même ba ñuy def couvre-feu sax dañu waroon di circuler ak nit ñi bëccëg bi waxuñu waxuñu gàddu et puis et puis nos confrères te loolu loolu loolu humblement ngeen baal ma ko gars yi presse mm. dafay influencer dafay influer day am effet ci ci ci gestion état mm. état bi lu mu jël jël décision dina tenir compte toujours ci li média di wax mm-hmm. que la évite dañ koy ñaan suñu confrères yi mm-hmm. l'utilisation de certains termes comme utilise la cravache. yaa ngi koy pousse à se sentir. tout à fait. à devenir à être. suñu kilifa yi ne ci médias yi dañ leen koy ñaan nañu tenir les mots ont leur sens et leur portée. Macky prend la cravache yaa ngi koy orienté. ci muy dumawaate. yaa ngi koy orienté yaa ngi koy encouragé yaa ngi koy dooleel ci sens budul boobu du cravache. Macky Sall appelle à plus de prise de conscience. aussi. loolu la. parce que bu ñu leen waxee manque de de tact dans la communication ñun waruñoo manqué tact boo tax suñu liggéey la. Macky Sall appelle à plus de prise de conscience. Mhm. le président insiste. mais le président tape fort sur la table pour. le président appelle à ce que demande à l'armée et à la police de descendre sur le terrain. il prend la cravache. non vous orientez mal. loolu dañu koy ngeen baal ñu rek parenthèse la woon bu ñu doon wax pour gaañi quoi <laughs> bi si des mooy li président woote loolu mooy dëgg loolu moo war a nekk dañu war a wàcc ci terrain bi service de sécurité yi wax Sénégal yi ne leen takk leen seen masque tout à takk leen masque yi ñoom ñu bokk contribuer ci sensibilisation bi exactement c'est hyper difficile di metti na de jamono bi takk masque tàngaay bi du lu yomb de maintenant on n'a pas le choix amuñu choix li nga xamante ni dañ ko war a wax gis naa benn médecin américain bu wax ne lu tax ñuy bàyyi nit ñi ñuy ñuy ñuy dem nii parce que hydroxychloroquine bi moo fi nekk mu wax ko ak insistance démb laa ko gis et j'imagine que Sénégal ñu ngi koy utiliser moo tax ñuy am ay géri kon nañu gën a insister foofu beneen bi non médicament traditionnel kilifa yi aussi nañ ci communiquer lu tax du ñu bëgg a communiquer ci ci garab yi maanaam on di pas dafay faj. mais bokk na ci mesure de prévention. justement mesure de bokk na ci xam nga tey bu ñu waxee tous ces fruits là buy buy. sama benn xarit moo ma ne y une semaine oui sa jëlal buy bi ngay naan. donc dëgg yàlla buy dafa bari dafa bari dafa bari qualité. Mhm. vertu. tous ces fruits là ñu am ko fi nañu encourager Sénégalais yi ci communication bi ne leen dee leen ko utiliser dafa mel ni gars ñi bu ñu waxee loolu dañuy ragal nit ñi. dem si sàggane médecine moderne non prévention manger des fruits loolu lañu tubaab di wax. Mhm. Oh, il faut manger une pomme il faut manger une orange il faut manger manger manger. Mhm. mais nañu wax Sénégalais yi ne ñun dañu am uul lëng solom alom tol. ak yeneen ñu wax ko sénégalais yi ba pare gën ko fësal gën ko mettre sur le marché lu tax lu tax fii suñu ay suñu ay espace loolu mel ni lu fi disparaître ba pare am ci rayon tubaab yi quand même c'est une dañ wax dañ ak xel tax loolu ñu mu mel ni gisatuñ ko ñun te ci rayon tubaab yi mu am fa mhm. buy di jar lu cher ci tubaab yi ak leneen ak leneen ba ci bisaab beeg leneen waaw lu tax loolu lu tax ñu mel ni rek dañuy gëlëmal rek L'État du Sénégal doit travailler dans ce sens. À chaque fois, on nous dit consommer local. loolu la ñuy wax noonu nguur bi. tout à fait consommer local. oui consommons local. mais na nguur bi mettre en valeur bu ñu waxee agriculture. Mm. agriculture yemul rek nom de jë ci gerte ak ceeb. aussi ak tamaate. Ah? gerte ceeb ak tamaate. waaw <laughs> donc on a tellement de possibilités. Mm-hmm. Casamance yaa une semaine sama benn xarit mu ngi wax ne ma mango bi yàqu Casamance kenn xamul nu mu toll. ndax lan amul amul moyen de communication mm-hmm. voie de communication. yu yomb yu koy permettre gaañ yi tas ko ci dëkk bi nit ñi consommer ko. Mm-hmm. mango yi am Casamance yëpp mu bëri lool mais Sénégal mun nañ ko consommer lu tax Sénégal ñuy am mango période bi toogaat lu yàgg duñ ko am te tubaab bi moom di am ci ay rayon mango chaque jour nañu waxante dëgg. kon ASEPEX bii docteur Malick Diop ñu laa nuyu bu baax muy exporté. Mm-hmm. muy exporté baax na mais nañu fexe. ñu def de sorte que loolu ñuy bay fii ñun ñu consommer ko ba pare mu agsi si ñun. tout ñu am possibilité maintenant de transformer et qui dit transformation pense à industrialisation. Mm-hmm. donc juste dire que président bi il a raison vraiment monsieur le président wax dëgg nga wax wante yàgg nañ fi wax. te li ñuy wax ni amoon na donc président décision boobu mënoon ngeen ko jël depuis le début bi nga ne da ngay ko déconfiné nga ne armée beeg kii bi vous descendez en même temps depuis le début ça devait se faire maintenant que tout le monde. a peur mais il nous faisait confiance peut-être. non il faisait confiance à la prise de responsabilité des Sénégalais. il s'agissait pas de nous faire confiance. il s'agissait de nous accompagner il s'agissait de nous accompagner. c'est ça le terme. <laughs> il s'agissait encore moins forcément de nous faire mal pour qu'on respecte la chose mais de nous accompagner. Mm-hmm. de nous encadrer allez-y jëlal tale bi. mais bébé doo ko bàyyi muy raam di dem da nga koy téye. Hmm. et on dit pas que ay bébé lañu mais sénégalais yi ay nit lañu. Ah. ñuy dund ay jafe-jafe yu leen ëpp doole. Hmm. nit a ngi jóg nga ne ko takkal sa masque mu takk ko nga ne ko masque bi ñaata lay jar mu ne la téeméer le seuil de pauvreté est de cinq cent franc CFA one dollar wante kooku day xëy du am téeméer. Hmm. kon amul lu mu jëndee masque. ñu utal ko masque tissu ne ko boo ko jëlee nga fóot ko mu war fóot amul savon. parce que tumuranke bi Sénégal moo egg niveau boobu waa ji war a xëy amul savon mu jël ah, amul choix takkaat. circulé aussi nga leen loxo yi te ndox amut. raxas leen loxo yi ndox amut. ak yeneen tellement de paramètres. Mm. il faut pas que les gens pensent que forcément Sénégalais yi voilà ils ils sont euh, c'est pas leur souci déedéet. Mm. mesure d'accompagnement il faut que mu nekk. mesure d'accompagnement d'accompagnement et puis. faire appel euh, aux forces de l'ordre xam naa ne ak le ministère de de l'intérieur. Mm. daañu tàbbi ci mbir bi mais rap le rappeler que ne affaire bi nag du répression. du répression parce que Sénégal dañoo tàmm ne bu nee waa ministère de l'intérieur jox nañ leen digal il faut que les forces de l'ordre ñoom tam taxaw ci sensibilisation la leen wax mhm. accompagner li population boo boo ñëwee fekk ci bintaa ci arrêt takkul masque nga ne ko yaay boy takkal mhm. masque bi léegi nag euh, place publique yoon c'est obligatoire wax ak moom Sénégal difficile Sénégalais difficile wul mais nag affaire bi du répression kenn waxu leen ngeen jël parce que parce que boo ko léegi yow boo dóoree da ngay fausser combat bi. da ngay fausser bi su ne. da ngay taxoon jóg génn nga ci. yaa ngi si leneen. da ngay ñëgloo nit ñi après après après lan ngay da ngay ñëgloo nit ñi da mais mais on on on le dit pas dans le sens où on va. faire de sorte que nit ñi aussi war a continuer def lu leen neex non. ah non non les sénégalais sont lépp mu ngi nekk ci orienté xanaa xamoon ni dëkk bi. le Sénégal gars yi dañu naan chaque peuple à le dirigeant qu'il mérite ñun dañuy wax ni si li ñu gëm. chaque peuple est l'image de son dirigeant. na njiit ba mel. la dëkk bay mel takk masque. de mi ngi raxas na na njiit ba mel. la dëkk bay mel. na njiit ba di taxawee na muy orienté la dëkk bay mel. le président le président. moom bu orienté droite. waaw dëkk bi nekk à droite. bu orienté gauche dëkk bi nekk ak gauche. Sénégal lu ñuy dund ñàkk tumuranke wax lu dul dëgg jaxase. iñaanante ak lan corruption moo fi fës mais loolu pour mu deñ dafa am réorganisation socio-étatique kon maanaam dafa mel ni ab sàggan bi nga xamante ni ñoo ngi koy euh, euh, euh, junj ci say propre sénégalais ci nguur gi la tàmbalee wàcc ba ci ñun ñoom ñooy modèle ñooy exemple ñoo lu fi xew ñooma gëmuñu ñun suñu gis-gis bu gàtt mm. gëmuñu ne sénégalais yi ils léegi la wax ñu leen waa mais président bi si ñun la jóge mm. mais ñun ki ñuy jël tànn ko mu ñëw wax ñu ne man la man maay waaja mm. maa ngi nii nii laa mel ñun yaakaar la ñu am si moom <laughs> waaw kooku bu ñëwee tas suñu yaakaar ñun victime la ñu justement président Macky Sall nee naa la saa su moom mi ngi ñuy seetaan ñoo ngi koy nuyu président au passage waaye tamit di wax ni rek dañuy sottante xalaat ngir mu xam ak di yëg li askan bi di yëg bu ko defee rek moom mu mun ci góorgóorlu léegi mu wàcc ci tali bi dafay metti ci moom dafa bëgg Sénégal dafa bëgg Sénégal sax ah, ka bëgg Sénégal nag dañu séddoo ak yow lu tax pour mesure barrière yi ñuy wax police ak gendarmerie alors que président amoon na possibilité wax mairie yi ñu jël ay xale comme les bonhommes de la route mm-hmm. ñu jël ay xale parce que takkal masque loolu suñu la ko waxee war nga ko mën a def ruus def ko jarul jarul police jarul gendarmerie mais professeur benn côté am na cinq cent cinquante sept commune collectivité locale mm-hmm. ku ci nekk bu defoon benn groupe de jeunes ci quartier bu nekk ñu taxaw ci koñ yi ku jaar ñu ne la solal sa masque donc loolu suñ ko doon def. professeur foofu ah, tuuti brèche rek. waaw xam man j'ai eu avec euh, euh, le point Covid bi ma doon def à vingt et une heures. Ouais. sur Sen TV. j'ai eu quand même l'occasion de parcourir les communes. Mm -hmm. communes waaw li ñu liggéey ci mbas mi. Hmm. état sax ak yeneen maam mi liggéeyuñu ko. waaw communes yi ñoo gën a xeex dugal seenu loxo ci xeexu mbas. nañ leen nañ leen dooleel dañoo sonn. nañ leen dooleel. te li merci dooleel boobu lañ leen war a dem gis nga communes yi lépp lu soxal wàllu xeexu mbas mi. Hmm. Euh, accompagner les populations ñoom ñëw ci njëkk en fait. Hmm. donc ñoom danoo sonn ñu ngi. ñu ngi ñu ngi leen dooleel moom ñu leen dooleel mooy gën foofu parce que police ak gendarmerie ñu mais aussi te li ñu war a def bu ñu bu ñu gisee policier muy ñëw après gars yi jël basket bi dugal ko seen poche. mais professeur aussi boobu nag dañuy toucher responsabilité wu sénégalais yi nga xamante ni Pape Assane nee na aussi ab xiif wala mar wala rafle mën na leen a jàpp ba ñu jaaxle ba ñu fàtte ndaxte nag ñàkk ñoo xam ils sont très conscients le sénégalais. Mmh. le sénégalais fait partie euh, des du des peuples les plus intelligents. Mmh. d'Afrique donc euh, modestie à part. alors tey jii nii. tey jii nii professeur euh, sénégalais. sénégalais ñun ñëpp xam nañ ni que ñun dañoo ragal police relais communautaire yi gis nañ ci léeg-léeg Mouhamed sax relais communautaire la parce bu daf may romb boo takkul mas ne ay waay soxna si takkal sa mas nga ne ko mm. yooyu sama waa ji xaar mm. garawul feebar bi est am na bëri na ci Mambay sax mi ngi ciy ñëwoon keroog nee na benn xaritam sax mi ngi koy yaa ngi ci mbas mi ba léegi est ce mbas mi am na mm. alors peut-être que police fermeté bi muy am ak euh, ci askan bi xëy na moom moo tax ñu boole leen ci biir mais je pense qu'il doit pouvoir jumeler justement avec les communes. voilà et les relais communautaires la pas san lu mu wax mooy accompagnement. Euh, su fekkoon Sénégalais dañoo ragaloon koy police casso yi du ñu fees te kaso yi ñu ngi fees del mm. donc xam nga am na ñoo xam ne dañ koy wax noonu rek <laughs> mais Sénégalais ci boppam bu doon ragal policier dëggantaan am na ñu bari ñu ko def. donc ça veut dire que am na situation yoo xam ne ah, sama jarbaat su ma nee tonton takkal ba sa masque damay ruus. Mm-hmm. mais policier mais policier bu ma waxee su ma nee waaw d'accord naa ko sol ma ne ko eh kii dafa soof parce que jaar romb nga ko mais sa jarbaat bu la ko waxee sa dëkkandoo bu la ko waxee. mais da nga ko gën a soraale moo tax ah, implication communautaire bi. je comprends parfaitement le le le professeur. dire que maanaam. fi muy waxee mooy porté wu message bi nu muy eggee si nit ñi. touché ba population yi ko. Mhm. c'est c'est que c'est intéressant. voilà foofu laa bëggoon rebondir parce que asma dañuy wax dans la vie rus nit moo gën ragal ko. Mhm. tey jii euh, contrainte positive bi paasan di wax am na mais initiative personnel moo dàq. Mhm. Uh-huh. tey jii li nga xamante ne ci bintaa la jóge ci xolam la jóge si conscience am la nekk mu gis policier mu bañ ko gis da koy def mais euh, bu fekkente ni su contrainte nga koy def ki ki tax ko minute. donc la nga nekk donc je crois que un peu débat bi faussé nañ ko li ñu waroon réussir mooy encore sensibilisation bi en un tel enseigne que population bi du ñu sax xaar contrainte bien qu'elle soit positive wala. Mhm. mais ñoom ñooy jël seen initiative personnelle di takk seen ay masques. mais justement indi nañ fi près de ou jeunes euh, yoo xamante ñoo wàcc ci dëkk yi. justement alors euh, loolu. relais communautaire la gis mhm. gisuñu ci peut-être aussi li nga xamante ni moom mooy li ngeen di wax parce qu'il faut prendre les deux en compte c'est-à-dire soit ñu boolee mhm. takk deer mhm. ak ñi nga xamante ni ñoom mooy relais ko il faut jumeler jumeler pour répondre à Binta Binta mais ban genre population aussi nga am parce que bu dee sensibilisation la communication à travers les médias tey billaay sénégalais boo ci woo ne ko lan mooy mbas mi nan nga koy amee mu wax la ko du jubi à la fin xam na ko hmm. xam na ko de xam na ko bu la bu la waxee lan lan la ñu def ba ba prévenir ko mu ne la takkal takk masque hmm. dandante hmm. raxas loxo yi xam nañ ko mais problème bi mooy lu tax ñun dun ko appliquer foofu tamit dañuy wax état état il faut que ñun tamit sénégalais yi ñu xoolaat suñu bopp nañ ñu dimbali man li may faral di wax asma mooy justement ñun ñoo fi mën a génnee mbas mi tout à fait ñun ko maa ngi gis ñi Adama Sow mu ñuy wax ni ah. huit cent trente personnes. démb ci mbir moom ci mesure yu bees yooyu état bi jël. dañ leen a téye dañ leen a jàpp ci ñàkk port masque te trois cent quarante yi Dakar lañ dëkk. ci démb rek léegi ñii xam nga buñ leen téewee tey. c'est sûr que bu subaa kenn du leen téye ci mbir mi. dinañ def effort bañ ciy duggaat. mais problème bi du téye bi de. Hmm. téewin ba. teewin ba teewin ba waxuñu ngeen jàpp nit ñi sànni leen ci gri yi ñu mm. dajaloo fa waxuñu ngeen jël nit ñi dajale leen brusquer leen mm-hmm. euh, brutaliser leen amul sens mm-hmm. du moment ak conscientisation lañ toll mm-hmm. te armée bi kenn gënu leen jàng conscience ak conscientisation ñoom dañ leen di ñaan on prie les forces de sécurité ay yale aller on leur demande pas d'être doux ou tendre xamuñu loolu ñoom bu dëgër bi la xam on leur demande juste de faire sorte que et de se rendre compte que eux ils plus de force que ñi ñuy jàpp. ki nga xamante ni yaa ko ëpp doole ca tenue ba. ca arme ba nga yor ca loi li mu la permettre kooku boo ko sonalee yaa ngi yaa ngi yàq yaa ngi tooñ. yaa ngi yàq liggéey bi donc foofu li am solo. dañ leen koy ñaan rek. Mhm. nañu ku solul masque. nañ la téye nga fay. Mhm. wala ñu xool ne la ñuy def mais bu ñu gaañ. Tout à fait. Funérailles du Khalife à Medina Baye. La crainte du rassemblement. On reste dans la thématique justement. lan ngeen ci mën a wax. waaw dañu wax ne yaa maa ngi dégg sax ñu naan ñu naan mille euh, agent de sécurité. yoo xam ne war nañu nekk foofu euh, crainte bi mooy. dafa am ñu jóge Burkina Faso. bitim réew Nigeria mhm. Ghana Côte d'Ivoire Gambie Mauritanie. c'est-à-dire parce que Baye dafa yaatoo noonu. ci Afrique. Mhm. le roi de de Kano. tellement de de de contrées au Nigéria yoo xam ñoom ñëpp dañu bëgg ñëw. parce que ñoom ñoo sàkk woon ñaan benn fan de plus pour euh, denc sunu kilifa bi sunu maam bi. Cheikh Ahmed Tidiane Niass. léegi nag ci condition yooyu. kan moo war a organiser mbir mi. état du Sénégal mooy mooy accompagner encore une fois de plus l' accompagne et je pense que les dispositions jël nañ ko à ce niveau pour loolu loolu moom. état bi jël na disposition yi pour pour organiser sécurité bi foofu. tout léegi la crainte mooy dajaloo ba. Mhm. ña war a ñëw war a dem moo xam dañuy indi. Mhm. mën nañu yor virus bi indaale ko comme mun nañ ko fi gàddu yóbbaale ko loolu mooy crainte bi. Mhm. léegi nag organisation bi lan la gis nañu sax ñuy wax ne sunu euh, kilifa bu bees bi euh, xalif remplaçant bi mu ngi wax ne. mu ngi saignement yi mu ngi mu ngi araftu. la jeunesse de Kaolack. Mhm. ak euh, taalibe yi. plus de discipline plus d'organisation bu dul loolu il menace il menacerait de démissionner bon loolu si si si mais. waajur bu nekk ak ni muy waxee ak njabootam xam na leen xam na leen. donc li si nekk mooy état bi mooy mooy mooy moo war a def effort bu fort démb maa ngi dégg sax am na ñu ñu woon aéroport. Mhm. ci ñu nga xam dañuy doon door a wàcc si jóge ci dëkk yooyu donc ñu war leen mën a xool vérifier mais ce sera très difficile hyper les passionnés. luñ leen wax wax wax wax am na ñoo xamante ni mën nañ leen bañ a kenn du leen mën contrôler xëy na nañuy demee la. mais yàlla na yàlla def ci sutura. ci barke sunu maam boobu Cheikh Ahmed Tidiane. amiin ñas bi fi jógee ak. barke Baye barke Baye barke <laughs> Baye. amiin Roule ëdëp moom mooy euh, livre bi nga xamante ni moom la ma Mbaye njëkk bind mhm. euh, te Roule ëdëp képp kuy taalibe bu ko gëstoo rek di nga xam ne ni port de masque bi nga xamante ni moom ngay fàttali nii mi ngi ci biir ndax ndaxte dafay naan kenn ku ci nekk da nga war yor euh, togginu taalibe ak ab yar bu ñu la gisee rek lu ñu la laata ñu lay tere sax nga mën a tere sa bopp te mbas mi wër na wër na àdduna kon nag dañu war a mu teg ci xamal yàlla waaw xamal yàlla xamal yàlla waaw xamal sa yàlla moom xam naa ni daal tëgg yàlla xam fooy taxawee <laughs> waaw yàlla yi wax kooku moo la bàyyi mm-hmm. <laughs> ñas kumba borom faydu bi waaw ñas kumba abdallah kay yàlla na ci yàlla def barke ak yiw ah, euh, def jàmm Sénégal amin ya rabbi ñetteelu ponk bi lañuy ñuy waxtaanee très rapidement fait inédit le recteur qui parle euh, qui part et livre séance tenante sans logement de fonction et sans bureau kooku moo la Ibrahima Thioub Hmm? Euh, professeur xam nga ko. xam naa ko bu baax a baax ci Ibrahima Thioub tuuti. Euh, man nag fac science laa nekkoon moom mu ngi woon <laughs> fac lettre. Mhm. mais li ma la mën a wax ci moom c'est que nit ku jub la. sama mhm. sa yëguma ko woon yaa ma koy yëgal mais mhm. du lu ma bett. c'est-à-dire c'est ñoo xam ne la ñu ñu gën a jiite ci àdduna mooy xam-xam. mosuñu jiitee alalu àdduna. te nekkoon koo xam ne et c'est c'est extraordinaire d'ailleurs parce que moom mu ngi dem eh, du Moustapha Souran bi nekkoon recteur mu ngi génn àdduna ay ñaar nit la yoo xam ne dañu am benn euh, ressemblance ci mhm. intégrité mhm. c'est un éminent professeur d'histoire koo xam ne vraiment te yemul ci jàngaleere bi rek dafa daan bokk ci euh, maanaam doxalinu université bi bala mu nekk sax recteur mhm. vraiment loolu li nga wax noonu lu rafet la te leçon la jox euh, sunu sunu njiite yi sunu kilifa yi nga xam ne boo yoree ay ay moyens ay ressources boo bàyyi poste bi da ngay bàyyi da ngay delloo yëpp. waaw te loolu vraiment. Euh, c'est c'est bien que ça vienne de l'université. tout à fait ça fait plaisir. wax nañu wax nañu daal ci wàllu exemplarité. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, que modèle la parce que <laughs> bari na fi ñuy dem toog ca kër ya. Mm-hmm. toogandi le temps de. séance tenante il a livré dafa delloo caabi këram. ak caabi bureau mm. loolu la ñu wax. mu nekk lu marqué euh, esprit foofu ca université euh, fait inédit mais ñi doon baax ba tey ñu ngi baax. Mhm. ñi nga xamante ni xam nañu. c'était comme le professeur Sankare. voilà voilà ay car rapide la doon dugg. Issa Sankare ay car ay. professeur Maguette Thiam. bi mu doon euh, Thomas Sankara danga ma xaw a kii tuuti bi mu doon def déclaration de patrimoine wax na ba wax ni jabaram sax dafa am bor boo xamante ne actuellement fayagu ko woon. comme am na vélo am na frigo bu baax donc loolu yëpp c'est des exemples. justement justement loolu mooy leadership mhm. paasan xam-xam dafay tax nit gën a baax dëgg la moo tax nit waay waay xam ba baxaatal day gën a tax nit gi baax nga jub nekk ci yoonu yàlla. Mhm. dañu naan sax tonneau bu vide mooy bëri bruit waaye bu bu dell gëng gëng ngay dégg ah, kon nag xam-xamee mbir mi nañ fexe ba wut xam-xam te ba xam-xam. <laughs> tey ñun fañ lañ jëm. waaw gis ngeen mi ngi noonu alors Mouhamed Diop yow mi doon def Covid am na ku doon laaj léegi eh, ci suñu eh, internet yi naan. Eh, li nga xamante ni lu tax takkuñu masque may fàttali nii ñun dañuy def télévision c'est de l'identification et que respecté nañu li nga xamante ni moom moo di. distanciation bi lii mat na un mètre vingt cinq un mètre vingt cinq donc on respecte les mesures barrières justement mais kenn ku ci nekk bu wàccee plateau bi mi ngi takk maskam kenn ku ci nekk sama masque ngi sama saak mi ngi nii en face woon leen kay justement mi ngi nii Mouhamed Diop bos Binta Ba tamit mi ngi ci ah, saagam Pape Assane Seck bosama ngi noonu ay ca nañ ko wane ma xam nga su defee nii xam nga su defee nii su may wax kenn du xam te kenn dégg sax mu <laughs> mi ngi ci suñu biir saag yi parce que ñun lu ñu pare rek dañ koy ñëw saag bi door a ñoo toog donc on respecte bala ngay dugg ci biir kër gi fii dañ lay da ngay laal alcool hmm. da ngay raxasu ba pare sax laal alcool gel gel boo paree ci laal alcogel bi ñu tegal la xool sa température nga door dugg si kër gi bu sa température bi rouge rek da ngay des ci bunt bi te dañ lay rawale kon nag yàlla nañ ci yàlla musal ndax mosu fee am dégg ngeen kon